juumu leen nag ndaxte du am jot moo fi indi nit ñi kóllëre moo fi indi nit ñi mbëggeel moo fi indi nit ñi cofeel moo fi indi nit ñi xam la muy jar moo fi indi nit ñi ajaratu Aïda Diong tey moom daf ñu fekkoon sax ñu waroon dem orientation budgétaire sali bi ma koy wax dama mun gaa gars yi dem leen parce que man mënatumaa dem ndax sama yaayee xewle nit ki bu nit nee rek xaw ma nu may def nit nangu la a tax ñu jàpp rek ni ku mel ni man ak ñeneen ak ñeneen li ñu doon tey loxoom da cee dugg nit nag boo dee gor ña la mayoon loxo ba nga néewee doole ba mën a taxaw tey boo mënee taxaw boo leen ko mënul delloo nga gërëm leen Adji ayda jong bi ñuy am 14 ans di dugg parti socialiste dañ la faa fekk nekk ay jeunes man ak samay moroom nga encadré ñu sa jot nga def ko ci ñun sa alal nga def ko ci ñun sa xam-xam nga def ko ci ñun kon bu sa ay doom màggee ba mën a jël ay responsabilité ci réew mi war nañ mën laa taxawal ndaxte góor loolu rek la mën a féetee bu àdduna neex politique jax ba nga fecci ko la ci àdduna boo ko dara jar ñun tey foofu la ñu taxawee yow yaay nga ci ñun te jàppal rek ni saa yoo ñu gisee ñuy wax ci télé wala ci rajo wala ñu jël position fa nga tëdd naa ndox mu sedd sant yàlla xam ni nag ña nga yoroon màgg nañu Aïda Ndiongo lii nga def fii jàppal ni dañ ko tuddee lancement nag ndaxte képp ku fi ñëw contexte bi moo tax mbooloo mu bari kenn mënatu koo mobiliser ndaxte feebar bi lañuy bañ dajaloo yu bari wante lii nga def fii quartier boo dem ci digg Ndakaaru waa quartier ba ñu nga séqal àdduna séqal ñoom teraanga bu ñu dajaloo mopp lii Medina googu ma dëkk de bis boo ni woon Bamba Fall dama lay seet si dama lay sax marraine loo mouvement bi mu yor muy nouvelle vision bis ni ko tey ñu ngi si présidente yaa ngi nii yaay nekk seen marraine bu neexee yàlla ndaxte nag foog ñu fay naar bi xoromam bu ñu xaar ba ñu génn àdduna woon mu sori lool ñuy wax fa ñu jaar di ko tuddee mbedd nañuy xool ci dundam nañu ko jege wax ko ni dundam am na njëriñ defar na ay nit defar na ay kër faj na ay soxla problème yu bari réglé na ko aji Aïda Ndiongue li ñu doon tey yaa ñu ko njëkk a doon jàngalekat nga loolu leer na ñëpp ñu naw la lu yàgg nga doon jàmbaar ba ngay gune nga doon jàmbaar ñu xam ne ci les amis de Jean Collin nga ànd ak Abdou Diouf nag mu joxoon la cër gëmoon la nga taxaw ko taxaw bu mat yor union départementale bu Dakar jigéenu Ndakaaru yëpp nga diriger leen boobu ñun ay xale lañu ñu ngi doon ànd ak suñu yaay Mame Bassi Ndiaye laa li ngeer jógee kër Aram Dieng di la fekk si aji Aïda Ndiong li ñu doon tey yaa ñu ko njëkk a doon ndaxte yaa ñu njëkk a doon meeru HLM te la nga liggéey HLM ma nga fa te tey yaakaar naa ni fu ñu waxee tey ci femme leader fu ñu waxee ci tàngooru waalo waalo tudd sa tur kon la nga def HLM ñu ngi koy wax ba ndege ni aji Aïda Ndiongo tey maay premier adjoint au de Dakar mais yaa ma ko njëkk a doon ba nga nekkee adjoint au maire boobu jigéen ñi nekk adjoint au maire ak maire bariwul boobu de bu ñu xaar ba ñu dëdd nag soo koy waxee qualité bi soxlaatul dara wutatul dara yéen a tax muy sonn yàlla teral na ko yàlla teral na ko démb kon kuy sonn buy sonn nit ñee tax mais moom bu ko neexoon te këram wut xajal kon ngeen jàpp ni mobilisation bi wutu ko parce que ku nekk daf ñëw rek wutal ñu la teewal waaye jàpp ni bu ne ci Ndakaaru continuer naa la nuyu si gis lu ëpp lii ndax ña nga defoon ëpp nañu lii te bis boo ñëw Medina de di nga xam ne la nga leen defoon duñu duñu duñu liñ la woon gannaaw gannaaw ba nga servir le président Abdou Diouf loyalement nga servir le président Wade ndax te femme d'état nga femme d'état nga parce que femme d'état ak homme d'état état la ñuy servir du parti vous aviez servi l'État su Diouf vous aviez servi l'État sous Wade mais ñaan la président Macky mu jàppale sunu yaay mais ñaan la président Macky Sall mu xam ne yaay jii tey tax ñu bàyyi suñuy soxla dafa am lu mu tekki ci réew mi dafa am lu mu def ci réew mi dafa am fu mu nekk ci xolu waa réew mi ñu wax ko tamit nii na ku nekk fàttali ni am nga guddi boo ko soxla wala bëccëg boo ko soxla woon te taxawoon na kon yaay jii tey président li ma lay ñaan mooy ku nekk ci ñun rek na fàttali benn bisu démbam te boo ko fàttalikoo di nga xam ne ndaw sii di soxna ay di jong du ko ñuy yendal ci mbedd ku ñu war a teral la wasalaam